yëkkati yaawuñ maître Adama mu ngi laajte lan moo waral lan moo waral benn askan ñu ngi koy sacrifier di koy rëy di jël alalam di koy maltraité te kenn waxul mu ngi laajte ndax ñooñu bokkuñu ci biir réewu Afrique lan moo tax ku def ku bugg bon si pël yi lay dem gis nañu Rwanda Burundi lu ko tas etini kii pol la kii séeréer la kii joolaa la kii lii la te ñun ñoo juddandoo magandoo yarandoo warul am tubaab yi ñu ngi ñu rey tubaab yi ñu ngi ñu nax tubaab yi ñu ngi ñu sacrifié arab yi noonu lu tax ñun ñu nekk ànda xeexaat tubaab bi léegi ñun ñooy xeexaat maître Adama nee na na arrêté bii mooy première def naa quarante cinq pays lépp lu fa nekk xam naa ko ñu ngi wax nag di am punde partout foo dem lan moo koy waral te ñun ñoo nekkoon nekk benn man pol Firdou la Casamance laa dëkk mais doomi africain la maa ngi avertir état africain yi surtout CEDEAO jot nañu nag ñu jóg jot nañu ñu jóg soo demee prison yépp lii ñëw fa fees loo wax ñu jël lu ñaaw lu bon sànni ko poli maa ngi laaj ci Afrique nañu indi jàmm nañu defar nañu woote jàmm jàmm bii nag moo waral tey jotaay bi loolu laay woote mais ñu ma war a jox politiciens yi ñu ngi foye nit yi def leen comme fariñ di leen jaxase pour lan bu ku ne fii la juddoo bu ku ne xam na maami kenn nu mu dundee ñu ut maire député ministre président bu ku ne xam na keneen nu mu dundee sooy ut utal mais defal jàmm sooy dox doxal mais de waxal jàmm yéen xale yi tey amu leen avenir looy dëgg ministre sàcc na xaalis looy dëgg ministre am na kër yi jàngee ngeen be jeexal te amu leen diplôme ngeen am seen diplôme amuleen leen li ngeen liggéey fan ngeen di jëm réew tubaab yi ñu ngi teg frontière yi fan ngeen di dem yéen seen avenir lan la école yi doxul dara doxul ana njiit yi ñu ni carte d'identité CEDEAO soo jógee fi nga bugg a dugg Gambie il faut nga joxe cinquante bi bu nga bugg a dugg Mali il faut nga joxe cinq ana CEDEAO ana carte d'identité bi lu mu njëriñ maître Adama président africain yi lay waxal waxuma ab population président africain yi laa waxal ak tubaab yi comme na ñoom mënuñu wax tubaab yi merde ñun mun nañu taxaw ñu ne leen merde mun nañu taxaw ñu ne arab yi merde pour que ñun. am na ñu or am jaama am pétrole am lépp te ñu ñoo ñooy dem di yëluwaat ana intellectuel Afrique yi ana borom xam-xam Afrique ana ñu jàng Afrique yi ana ñu gérer africaine lii moo waral ndaje bi tey ndaje bi si Mbàkke bii nag mooy première day continuer nag lii moo waral ndaje bi sama mbokk africain yi mbokk africain yi laa woote Afrique laa wax man waxuma Sénégal parce que dama xam lan mooy Afrique te ñu ngi jooy Patrice Lumumba tey ñu ngi joy Thomas Sankara ñu ngi jooy Kadhafi ñu ngi jooy keneen ak keneen te ñoom ñoo rey Kadhafi ñoom ñoo rey Thomas Sankara fii biir Mbacké ñaata xeex moo fi am diggante sàmmkat ak béykat rapidement ñu rey nit tiire ko fetel pat ñu ngi tere poli fetel ñu ngi koy tere yat ñu ngi ko tere paaka te wax bi du mujjute ñaata camion di nag poli si si tali yi amul kosta amul wax pol bi te tey Dakar wala fenn soo reyee ganaar ñu def ko kosta comme ana droit bi ñun gisuñu suñu droit man maa ngi daw partout lu xew fu ne soo ma laajee ma wax la lu fa xew mais comme ana ñun suñu dura kana bokkuñu si réew mi yow suñu tamponné soxar ñu kosta dem terminal kii fukki nagam ñu rey ko ñu wone ko Facebook yone ko dara du mujj dara ñaata la ñu rey fii xeex diggante sàmmkat sax déedéet déedéet rey rey ko ñu wax ko réseaux sociaux mu jeex ñëw naa si du benn du ñaar du ñett kenn wax ba tey noppi na man ñëw naa fa fekkee ko filmer ko demal YouTube nga fekke ko fa xale bu ñu reyoon fi yàggul noonu am na ku ñu rey fale nga xam ne ne sëriñ bi moo moom feteel bi taalibe moo ko rey mu ñëw mu ne am na kaay ba tey ni wax bi dëkkuñ ko a yeneen a yeneen pour lan comme man lu ma wax dama ko xam Mali mu ngi nale tuareg yi ñoo indi woon xeex bi mais tey xeex bi mujj na si pol yi est-ce que pol yi ñu ne Mali la ñu soxla est-ce que Burkina mu ne euh, ñoom dañu soxla déedéet mais tey pol yi kese la ñuy rey téeméeri nit ñaari téeméeri nit juróom fukki nit jël seen nag jël seen jabar rey ay mag màgget rey ay jigéen lu tax duñ ko wax commencé nañ ko tey nag mais ñu ngi bugg Sénégal lu si nekk ak doomu Sénégal yu nekk bitim réew mi di taxaw di saaga di wax lu ñaaw di saaga suñuy kalifa diini yi di saaga suñuy kalifa diini yu mag te ñun amuñu dara su du diini bi di tuutal suñu nit diini yi loolu neexuñu wax dëgg yàlla mënuñu si dara mais neexuñu suñu xool def si tàng trop trop parce que suñu sañoon foo nekk si àdduna da fonk Sénégal da ngay fonk diine Sénégal parce que ñun diine la ñu am ak lislaamu ak tarika la ñu am ku fonkul tarika bi fonkuñu la ku buggul diine bi bugguñu la parce que yàlla suñu borom loo liggéey fii si àdduna da ngay perte bu des yàlla suñu borom soo amee fii sa kër jaama wala or da ngay deey nga dugg si ci biir suuf ñun nag lislaamu la ñu xam jam la ñu xam lu baax la ñu xam lu rafet la ñu xam yàlla ñu si yàlla saxal waaw mais ñun suñu askan alpulaar yi yépp doom aadama ku ñu def lu ñaaw ñun def ñuy métti suñu sañoon dañu jël yépp yépp yépp ñu may leen jàmm ñu may leen jàmm ñu may leen jàmm parce que jàmm moo gën yépp ñaan nañu yàlla problème bu nekk Mali tamit yàlla ko yàlla teggi parce que lu si métti lu si nekk métti na trop dañuy ñaan yàlla yépp si fitina am ak musiba ak bala ak seytaane fu ma am yàlla ko yàlla dindi yàlla defal ñu jàmm defal ñu suturo defal ñu salaam